أكمت يا أكم باخي بكون يا سا فوزي بما قاب من بسراك يا الله السلام عليكم ورحمة الله tedd yi ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala ci may gi mu ñu may ñu dellu siwaat ànd ak yéen ci jitaay yu tedd yi nga xam ni baaxoon nañ koo def ak yéen ci weeru koor wu nekk ci kilifteefu cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbakke xafidahullah waraa ci taxawaayu sëriñ Mouhamadou Abdoulahi Mbakke al imam ci njiital sëriñ cheikh Xaadim Mbakke ni cheikh Mouhamadul ak ci feggoom sëriñ Muntaqa ak mbokk yi ñu seqal liggéeyu académie Minan di sant bu baax ak gërëm ci mbokk yi tànn yi ñu tànn tomb yu am solo yii kon ren jii ci weeru koor wii di dëppoo ak junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn ci gàddaay yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye méngoo ak atum ñaari junni ak ñaar fukk ci juddu Seydina Isa alayhi salaatu wa akademiyatu mi baal xadim lil ulumi islaamiya baaxoo tànn ay tomb yu am solo di ko indi ci weeru koor wu nekk ni ñu ko daan doxale nag mooy ginnaaw jullit ajjuma gu nekk ñu toog jitaay boo xam ne jitaayu xam-xam lay doon dundal weeru koor wi kooruk ren nag am lu ko wuutalee ak koor yiy weesu ngir natt bi nga xam ni wàcc na ci àdduna bi ba tax lu bari soppeeku na jitaay yi daan tëdde nag ñu soppi ko ren ci ay yoo xam ni dañ koy def dëppale ko ak tolluwaayu jamono ji ci wéradi gi nga xam ne mooy Covid 19. ba tax na ñi nu tànn it ñu di leen indi par benn ñuy def seen enregistrement su weesoo ñu jàllale ko ci mat njumtukaay yi nga xam ne ci lañ ko baaxoo di jàllale muy réseaux sociaux yi. di rajo yi ak télévision yi kon coppiku googu moo ci am ren kon site bu mel ni académie Minan bu demee ni a nga xam ne yàgg nañ koy jël feggoo ci ak mboolem site internet yi ak chaîne YouTube yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak yi nga xam ne daana yittewoo waxtaan wi ñu di leen sant bu baax di ko ànd ak ñoom ak rajo yi télévision yi sunu jitaayu tey jii nag ñu fas ci yéene ànd ak uh, boroom xam-xam bu mag di gëstukat di ko ñu miin ci ay waxtaanam ci wàllu diine ak it waxtaan woo xam ne dafay jariñ nit ñi ci seen àdduna muy sëriñ Mbàkke Abdourahman al imam mu namm noo waxtaanal ci thème bi nga xam ni mooy al maasi wa athaaruha al fi dunia wal axira te mooy mooy yi ak seeni jeexital ci mën a alag nit ñi ci àdduna ak alaxira muy tomb bu am solo ndax nit ñi it euh, boroom xam-xam yi lañu am ci ñu leen mën a gindi ñoom lañu leen bataleel ñuy ndona yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lañuy tànn di seet fa tolluwaayu jamono ci seen diine ak seen àdduna su boobaa loolu day doon lu am solo waaye askan wi di war di bàyyi xel loolu ci fexe ba luñ ci dégg jëfe ko ndax tolluwaayu jamono laaj na tomb bu mel nii ñu waxtaanee ko waaye nag ñu jox ko ko ko yeyoo muy sëriñ Mbàkke Abdourahman kon nag sëriñ bi bismillah aouzu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne mooy cheikh ramadan lu barak di tàmbalee nuyoo beeg ziar bi ak ndokkeli ci eh, cheikh mouhamadul muntaqa xafisahullahu taala wa raa mi nga xam ne moom la yàlla teg sunu kanam mu jiitu ñu jiitu rafet di ñaan yàlla sàmm ko dëgëral ko mott li mébitam yëpp ñu nekk fii nag ci benn ci ay ëttam ci jumaay darul minan di ànd ak mbokk yi di académie yetu minanil baaxil qadim lil ulumil islamiyya noonu ko alxaji Moxtar Seck waxe léegi di ëttu gëstu xam-xam boo xam ne eh, ñu ngi ko taxawal ci ndigalul kilifa yi eh, sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mountakha ak sëriñ Mountakha sëriñ Mamour Pakala eh, ak sëriñ imam sëriñ Moudou Abdoulaye Mbacke ne ci boppu mbooloo moomu ñu baaxoo nag koor gu ne bari miin nañ ko fi ñu fi dajee di fi amal jataay xam-xam di fi yeet di fi jàngale xew-xew yi amit du tee lu baax luñ baaxoo woon daf ñu wéy di ko def xëy na loolu moo leen jental ci ñu fexe ba amale ko ci anam gi li ci am solo mooy nit ñi jot ci jariñu ci kon ñu ñaanal yàlla sàmmu leen dëgëral leen ñoom itam ndax liggéey bu am am solo lañuy liggéey di jëriñ julli ñi di jëriñ taalibe yi tom bi ñu tànn nag sëriñ Moxtaar wax na ko léegi mooy mooy yàlla mooy yàlla ak jeexit yi nga xam ne am na ko te muy jeexit yu alake yu lore fii ci àdduna ak balaaxira loolu nag jàpp naa ne fu ne lañ ko war di waxtaane waxtu wu ne lañ ko war di waxtaane ndax buñ bàyyee xel ne ñun àdduna fii dañu fi indi ngir duñu nattu waaye mooy ñu fi indi sunu maam Adama alayhi salaam euh, defoon ñu tere luñ ko tere woon mu xëtt ndigal la moo tax borom bi génne ko aljanna andi ko àdduna waase waase aadamu rabbahu fa xawee loolu alxuraan la euh, bàyyi woon luñ ko defoon luñ ko tare bokk na ci li ko li ñu indi àdduna kon kon mel na ne ñun eh, li sabab suñu ñëw ci àdduna eh, bokk moom la ñuy waxtaane te kon bu toon loolu mën naa am aljana la ñu nekk di fa dund nga xam ne xéewal reen fa nekk lor fa con neewu fa waaye mooy yàlla it du rëy loo xam ne it ki ko njëkk a def it moo yées ci mbindeef yàlla yi muy aadama laan kii muy iblis laanatullahi alay ba ko borom bi digalee mu sujootal maam aadama mu xëtt ndigal la loolu ak mooy la yàlla rëbb ko rëbb képp ku ko topp bu yemal xiyamatul akbar loolu it tax ñu war ko moytu muy aw meloom ci melow cheytaan la bokk inna cheytaana kaana lirrahmani asiya surum noona nag kon lépp lu déw meloom rek dañ ko war a moytu loolu it bokk na ci li tax ñu war a xam ne eh, mooy mat naa bàyyi xel muy lu yaatu loo xam ne nag eh, nit dana def di dana ko def tey ko nit dana ko def te du ko tey nit dana ko def yëg ko nit dana ko def te du ko yëg moo tax lu mat di gëstu la lu mat di càmbar la eh, jeexee yu bare bari la am nag fii ci àdduna bari na lool lu fi equ mooma bu yomal xiyaam it bari na lu fa nit ñàkk mooy mokk xañ wala asubillahi taala kon lu ma a waxtaane la moo tax ñu fas ku yéene tënk ci tomb yi wax lan mooy mooy lu koy sabab na am nay sabab ak jeexit yi nga xam moom lay am fii ci àdduna duñ tudd yëpp waaye danañ ci tudd yenn ak yenn ci jeexit yi nga xam ne mën na ko am ci àllaxira mën na ko mën na ko jural nit ki te yëpp nag di jeexit yoo xam ne ay safaan lañ yàlla ñu ci yàlla musal maasiyatu mooy mufradu maasi maasi mbokk yi mooy mooy man yoo wax ne lépp lu safaanoog topp ndigal rek moom la li ñuy tuddee muxaalafatul amri shar'i ci anam gu mu doon rek loolu maasiya la saa bu nit ndigal luñ ko santoon defu ko xamal ne mi ngi ciy mooy bari na ci arab nag ay baat yu bari yu mbokkal yoo xam ne yëpp dañ koy jëfandikoo waaye boo boo boo demee ci biir ci mooy rek lay dellu bokk na ci al danb al xatia al sayi'a al xuub al ism al isr al lamam yëpp ay mooy la kon lu yitteel la ba suñu borom ci alxuraan tuddee na ko ay turi yu wuute di ci moytu la nit ñi di ko lënkaleeg it la ca nekk ci ay safaan yoo xam ne bu ko nit ki def mën na ko dal mooy nag buñ ko doon tënk ñaar lay dellu ñaar rek lay dellu mooy bàyyi ndigal ak defuk tere mooy goo fa gis rek génn ñaar yooyu benn luñ la digal te defoo ko mooy la luñ la tere nga def ko mooy la kon euh, tarkul ma'muur yi ak fi'lul mahzuur ñaar yooyu mooy mooy kon bu nit ki kon ku ne jaadu na ci noonu mu xam lan mooy ma'muur duñ ko digal lu mu doon mu xam ne lii soo ko bàyyee rek yaa ci mooy waaye war naa xamit lan mooy mahzuur luñ ko tare ba mu xam ne lii saa boo ko bàyyee yaa ngi ci yaa ngi ci mooy mooy koo fi dégg rek du génn ñaar yooyu ak nu mën a toll loolu jàpp naa ni baax nañu xam ko loolu ginnaaw melaw sunu noona muy seytaane dañ ko bàyyi xel wax naa ko sànq inna inna cheytaana kaana lirrahmani asiya euh, moo ñu génne woon ajjana moo fa génne sunu maam wa asay aadamu rabbahu fa xawaa ginnaaw bi mu jéggalu yàlla jéggal ko tànn ko waaye nañ xam ne euh, ñun toppaange googu dañu war a topp moo tax bokk na ci ay turam sax ay tabiaat tabiaat lu ñuy gàtt topp nit loolu ci xeeti mooy yi la bokk moo mooy nag ay ay séddal séddal yu bari am na gis na ko séddale ci diggante bi nga tey bi nga teyut bi nga yëg ak bi nga yëgut waaye bi ci ëpp solo mooy lekk am na moy yu mag ak moy yu ndaw moy gu mag moom mooy loo xam ne fii ak tuuboo ko des la ko jégal tuub rek lu mat a xam la ndax bari na ci alxuraan ak sunna ñuy dégg ku def nangam ñu jégal ko bàkkaaram ku def nangam jégal ko bàkkaar yooyu yëpp bàkkaar yu ndaw tax ñuy wax waaye bàkkaar bu mag moom tuub rek mooy tax ñu jégal ko nit ki bàkkaar yu ndaw yi nag diis na ko jéggale ci yeneen bokk na ci yenn yu baax yoo xam ne ku ko def yàlla jéggal ko bàkkaaram bokk na ci moytu sax yu mag yi in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum bu ngeen moytoo bu ngeen moytoo bàkkaar yu mag yi yàlla ne dañ leen jéggal yu ndaw yi kon teet bàkkaar yu mag yi dana tax ñu jéggal la ko yu ndaw yi ndawaan yi ngay def euh, te mën naa am sax tuuboo kon ñu bàyyi xel ne bàkkaar bu mag moom moo tax moytu la moom nag ni ko boroom xam-xam di melale mooy bépp mooy goo xam ne dafa ànd ak laana yàlla di caa wax ne rëbbum yàlla dana ci wàcc ba kabiira la loolu nag buñ ko seetlu yaatu la bokk na ci ci misaal laana allahu alwasilata wal mustawsila yàlla rëbb na ku jokk kawaram ñi lëtt nit ñi di yokk seeni kawar ak ñi koy deflu yàlla rëbb na leen kon jokk lëtt jokk kawar def ko ak deflu ko yëpp ci kabaayir la bokk bakkaar bu mag la wax nit ki faw mu tuub ko ngir yàlla door ko ko baal lépp loo xam ne merum yàlla da ci rot yàlla ndax ku def nangam yàlla mere ko loolu bu ñu ci alxuraan bari na lool ay jëf yoo xam day tax yàlla mere nit ki ay jëw ay yàq darab nit ak ja jaawal eh, tooñ sa mbokk ak wax lu waxuwut ak def lu defuwut yooyu yëpp dana jur merum yàlla kon ay bàkkaar yu mag lañ wala loo xam ne ñu ne ku ko def amatoo gëm yàlla luy dàq gëm yàlla walla doo texe wala ñu lënkale ko baatu fisq wala baatu kufru wala baatu xusraan yoo xam ne yooyu fu mu rote rek xam la ne bàkkaar boobu bàkkaar bu mag la kon neexut a lim waaye yooyu la nit ñi war a topp wala boog xadd am ca ñu ne ku def nangam dañ ko xadd ku yàq darub nit wax ci lu ñaaw danañ ko caw juróom ñett fukki yar kon xasfu bàkkaar bu mag la ku njaaloo danañ ko rey bu sëngee woo bu sëngee wut ñu caw ko téeméer yar tëj ko at bu dee góor kon loolu bàkkaar bu mag la ku sàcc dañ dagg loxoom bu ma matee nisaab bi ñu wax muy rubu dinaar loolu bakkaar bu mag la kon bépp bakkar boo xam ne xaddaroot na ca euh, mooy goo xam ne xaddaroot na ci dañuy jàpp ne ci bakkaar yu magi yi la wala lu ñu wax ne ku ko def day béel sawara lu mel ne ku rey nit tey ko wa man yaqtul mu'mina mutaammidan fa jazaa'uhu jahannam yàlla da caa teg ne dafay sax xaalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa laana kon yëpp da ca boole moom gën a rey bokk na ci kon xeet yi bari yuy xew ci suñu biir nit ñi di rey nit ñi ci lu du dara nañ xam ne yooyu ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne eh, fa mu yóbbu nit ki eh, gàcce la toroxtaange la àdduna ak alaxira war ko bàyyi xel baax a baax yooyu bokk na ca bokkaale yàlla bokk na ca dog ak mbokk bokk na ca wax lu waxuwut li ñu tuddee eh, seere ay neen walla wala wala wala wala wala nar xëy yu nga xam ne nit ñi dañ ko waaye fa lool li at fahil asbaab dañ koy def bëgg-bëggi adduna yu ndaw dañ leen jaral wax lu waxut di di di seere lu wérut léeg-léeg nga dégg kon tuddal kilifa waxal wax ci moom lu moo ko wax loo xam ne ñëpp xam nañu wérut waaye am na lu bëgg am wala am na fu mu bëgg egg tax mu di ko wax nañ xam ne yooyu du woyof boo aw làmmiñ it woyofu suñu borom te nit ki mën na koo def fàtte ko fii ak tuubu ko dee su ko jégal loolu it jàpp naa ne bokk na ci li nga xam ne mbokk yi war nañ ko bàyyi xel baax a baax bu dee bàkkaar yi ndaw yi nag mooy yi nga xam ne moom yooyu rotu ca moom mën nañ la koy jéggal te doo ko tuub jëf yu baax yu bare bari yi ñuy wax ci ay naafila ak ci koor ak ay ay ay julleeg ay saraxeeg yu bari yoo xam ne naan ku ko def yàlla dana ko jégal bàkkaaram nañu xam ne bàkkaar yu ndaw yooyu la ak donte nag bàkkaar tuuti dëgg-dëgg nag am na ci borom xam ne wax ne bàkkaar du buñ ko xoolee ci yàlla miñ mooy boo ko delloo ci nit ki nag mën naa woyof waaye boo ko delloo ci yàlla lépp luy xëtt ndigalu yàlla woyof tuutiwul moo tax lépp moo tax moytu am na ci bàkkaar yoo xam ne ci beneen séddale it bàkkaar boo xam ne nit ki la concerne moom moo tooñ boppam daf lu euh, defuut lu mel ne bu naaneem lu wala muy kàcc wax lu amut wala muy daf yu mel loolu bakkaar la boo xam ne yow la concerne yow nit ki yaa tooñ sa bopp ndax li ngay def nii lor jëpp jëpp ci yow la si am na ci yoo xam ne it keneen ngay tooñ bàkkaar boo xam ne mooy la goo xam ne ci keneen la jëm ndax soo jëlee àll jàmbur wala nga siif ko wala nga dóoru ko gaañ ko wala nga rey ko loolu bàkkaar la boo xam ne àqi keneen la am na ci yoo xam nag mustarak la nit ki boo sàccee alalam lekk ko lekk gi nga lekk loo moomut bàkkaar la bu dee ci yow wuñ la topp waaye alal jàmbur ji nga lekk benn bàkkaar la moom mooy ñu bàyyi xel la am ci yoo xam ne suñu boobu lay dellu ndigalu yàlla la boo ko xëttee ak yàlla am yoo xam ne sa digganteeg moroom bi jàmm yi yëpp yëpp mat a moytu waaye rawatina yi dox sa digganteeg sa moroom bi jàmm ndax yàlla suñu borom ci yërmaane mbaaxam mën nga koo tooñ moom dem mu jégal la ndax ku bari yërmande la waaye sama moromu jaam loo baax baax boo ko tooñee te baaluwoo ko fii ci àdduna ba mu baal la bu ngeen àndee faatu yow mal xiyaam doo jàll te fa yokku loolu sëriñ mag bi jàngal na ko radiyallaahu anhu ci aljahoor na fis nett li fa wax yonent bi alayhi salaam bi xaddu taflis mooy lan nit dana ci àdduna di góorgóorlu ci yu baax yi ma ngay def yu baax yëpp daanaka waaye nag téewut aw làmmiñam téewut aw loxoom ma ngay wax nit ñi lu ñaaw ma ngay yàq seeni der ma ngay jël àll jàmbur ma ngay nax nit ña ma ngay tappale nit ñi ngi jot seen alal ma ngi leen wax lu waxut ma ngay dajale mbooloo ci yoo xam ne jëmut fenn fa jëm baaxut yooyu yëpp ay àq yooyu gàddu la saa boo dajalee nit ñi jël seen alal jëmee leen foo xam ne xam nga ne jëmuwaay na leer na yaa ngi gàddu ay àq ndax ñooñu seenu doyadi ak seenu ñàkk xam tax ñu topp la yaa ngi gàddu seen i àq soo leen bàyyi woon ñu dajale ku jub dañ li mën a jubal yooyu yëpp nag yomal xeyam nit ki day toog lam yoroon ci lu baax lu mu bari bari dañuy toog ne ko nga tooñkat doo jàll te fayewu leen ndax yow man xam baale amu fa ci diggante nit ñeen ak nit ñi benn nga am bare lu baax loolu ndax ñu di ci tibb di jox ña nga doon tooñ bu desee lu la mën a musal ak yërmande yàlla nga mucc bu desut nga ñàkk léeg-léeg neen dañ ko def nit jël lam yoroon ci lu baax lépp séddale ko te du tee àq yi des ci moom ndax tooñ gu bari doon tooñ nit ñi ñu ne nu ñu def ñu ne kon ñeemu doon tooñ seen àq seen bakkaare lañ leen wàññil ndax yowmal xiyaam yokkal la tuyaaba ak wàññil la bàkkaar ñoo fa yam lépp yiw la ñu wàññi seeni bàkkaar jox la yow nit ki nga xam ne kon moo doon tooñ fi ci àdduna yóbbaale ay ton ci lu baax ñu di ko jël di ko joxe ba mu jeex takk àq ya des ñu roñ bàkkaar ñeneen sëf ko ba noppi yóbbu ko sa wara wala subillah loolu nit lu war ma moytu matamatu la kon ci tooñ sa moromu nit lay ware moo tax ku tooñ nit ci àdduna fexeel bala ngeen génn àdduna nga jéggalu ko mu jéggal la bu dee alalam joo jël la fexeel ba delloo ko su fa nekkee bu fa nekkul jox ko noonu nam bu fa nekkul nga saraxel ko waaye faw nga mu dellu ci moom bu dee loo yàqub deram wala loo ko wax loo ko war wax bu fa nekkee demal nga jéggalu ko su faatoo nag xamal na yóbbaale na sa àq te xam da ko fay moo tax ba yooyu yu mat di moytu la mbokk yëpp ay xeeti mooy la yëpp nag matam matam ay xel ndigal yàlla yi saa buñ ko xëttee yàlla ne daf leen defuñ su waa ñu ngi ci mooy Ibrahima salaam nee na bu yomal xeamee li dox diggante jaam ñi ak seen borom julli lañ ci njëkk a lijjanti bu jegee lépp jag bu jagu dara du jag nga ne bu ñu ko seetee daal gis ne moom kat àq julli joxoon na ko ko ñu ne alhamdulilah li ci des bu amee ay te mën koo jégal bu julli jagut ci digg mu yàlla dara du jag loolu Sëriñ Tuubaa jàngale woon na ko radiyallahu anhu ci njàng mu leer tal loxo mu tedd ba di wax ne dee leen julli te di ko jubal bu ngeen dee julli di ko jubal dana tax boo lëggee lu ngeen la jëloon julli ko jubal ko waaye moytu leen di julli di ko dëngal lu ngeen jubaloon bu ëllëgee julli ga dëngal ko loolu mooy awwalu ma yuxaasabu alayhi al abdu yawmal qiyaamati as-salaa waaye bu dee li dox diggante nit ñi yawmal qiyaam deret yi lañu njëkk lijjanti koo tuur deretam ko rey te ci lu àq bala ngaa jàll da ko lijjanti te yéen islaam noon nag mabbu kaaba gi moo gën a woyof yàlla tuur deret ab julit boo xam ne deful dara mbokk yi gis nañ ne bi set ci suñu réew yi bari yi xew ñu ngi tooñ àqi nañ ci lu dara di rey ay mbooloo ci lu dara mën nañu jàpp ne sax jàngoro ji yàlla nattu àdduna mooy yu bari rek la mooy yu bari rek ndax ci ci bàkkaar ci sabab mooy la bokk ndax borom bi moo wax ci alxuraan ne zahara al fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydin naas kon lu fi am ci lu wërta am rek na nga xam ne bàkkaar ko fi andi waxee ne ma asabakum min musibatin bimaa kasabat aydikum musiba mu wàcc ci dal nit na xam ne moo ko fàggu kon yi am yëpp moo tax li kilifa yi di santaane baax di ñu soññ di ñu delloo ci yàlla Cheikh Mouhamadou bu yeggu def ci jotaay bu am solo loolu li muy tekk mooy nañ ko bàyyi xel ñun ñun ñoo war laaj suñu bopp lu xew lu tax mu xew nit nag dafa baaxoo lu xew la ne rek dafay jëñ keneen te bu seetloo boppam mën naa yëg ne am na ci lu mu ci doon kon mooy yàlla mooy jur yi man ngi dañ daan wax ne bàkkaar day jur bekkoor loolu bokk na ci ay loram ngeen di sëñ Moussa Ka rahimahullah di wax ne musiba yeeg balaa yi lu ñu bari bari bu leen ko sikk gaafe mooy yee ko loolu lay leeral waaw ah, musiba yeeg balaa yi lu ñu bari bari bu leen ko sikk gaafe mooy yee ko ari mooy yàlla dafa am gaaf gaaf googu nag mooy lor yi mu jural nit yi koy sabab nag bokk na ci yu bare bari la li tax nit di def bàkkaar di mooy yàlla bari na de yu baree bari la yoo xam ne mën nañ caa tudd yenn bokk na ci gëm yàlla gu dëgërut nit bu gëm yàlla buñ ko yaree ci gëm yàlla gu dëgër dana xam yàlla mooy kan ba lu mu digle moo xam def rek la war moo ci war lu mu teree mu bàyyi rek moo ci war ndax lan li yàlla lay digle du yàlla lay jariñ yow jaam bi yaa koy jariñoo soo ko xëttee yaay perte li muy tere it yaa ciy loru moo tax gis nga sëñ bi Tuubaa radiyallaahu ci mën a ñaanam falaa tuaaxisuhum bimaa laa yanqusu bàkkaar mooy yàlla la wàññi dara yàlla kon bu ko jàppee ñoom ñoo ciy loru waaye lahum wahab alladi laa yanfau yàlla nag leen may li nga xam ne moom amulul benn njëriñ mooy topp yàlla ñoom ñoo ciy jariñu yàlla na defal ñu mën a topp yàlla waaye yàlla na leen musal ci bàkkaar lu solo la falaa tuaaxisuhum bimaa laa yanqusu wa lahum wahab alladi laa yanfau kon ñu bàyyi xel ne kon nit ki suy moy moom boppam lay tooñ boppam lay lor ndax ndigal li yaa ci jariñu lor ji euh, tere gi yaa ci naroon lor kon loolu it baax na euh, bu gëm yàlla dëgg dañu mën a ci yu bari euh, bokk na ca sàggane yar njaboot yu bari yaruñu leen ndax doomu aadama li yàlla wax ci alquran dañ ko war bàyyi xel yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha nas wal hijaara nit ku ne am nga responsabilité sa njaboot nga yar leen teg leen ci yoon jàngal leen diine xamal leen lu baax xamal leen bon bàyyi leen soo ko defee sa jaan wàcc na boo ko deful nag am nga masoli yàgg yàgg sa sa njaboot boo liggéey moo tax jataay yi ak daara yi sëriñ bii di taxawal di ci sonn waxtu ne bëgg nit ñi tegu ci yoon rek a tax ndax xam nañ ne nit ñi aw yoon nit du jubal boppam bëgg nit ñi jub moo tax yàlla yebal ay yonant jox leen ay téere yebal leen ci nit ñi kilifa yi nag ñoo fa wutu ñooña kon seen ndigal dañ ko war topp li ñuy woo dañ caa jëm ñoom nag li ñuy mooy ne jàng nañ yar nañ yar njaboot gi loolu bu ñu ko defee mun nañu mucc bàkkar waaye ku xamul dara nekk ab tën saa bu xiifee mbaa mu wéradi mbaa mu sonn rek mooy yàlla yëpp ci mu yàlla fii nit ku wéradee te amul gëm yàlla faaw mu yàlla ndax dana fajoo lañ koy tare dem ci jabar dana def lu mu wërti def dana naan lu mu naan ngir bëgg a wér saa bu saa bu xiifee te lekkut dana jëlee fi jàmbur ndax ñàkk gëm yàlla gi moo tax loolu yar nit ci gëm yàlla am solo loolu mbokk yi bokk na ci yooyu it nag ñàkk sàmm say bët ndax bët bu xoolee lu mu wërta xool mën naa tax mu def yaram def lu mu wërta def te dañu digal xaddul basar bu fekkoon te sàmmonte nañu yooyu yooyu bokk na ci mën nañoo mucc ci bàkkaar ci ci ci moy yi bi ci des it umpuli fi indi woon adduna jaam bi fi pour dëkk fi ba tax nga gis koo xam ne la muy dajale ak la muy dox day mel ne ku koo xam ne jàpp na day faatu waaye ki xam ne foo foo jaar di ay tool la yoo xam ne sa kër a dëkk dëkk bi di la xaar fii doo fi def yenn yi bi ci des it um yàlla ci la bokk umpulu yàlla bokk na ci jaxa-jaxe seytaane seytaane bari lu bari nit ñoo xam ne lañ def mën nañ ci dugal bokk na ci woru woru ci njëgalu yàlla am na ñoo xam ne yàlla la bari na njëgal yërmaane ci la nett histoire ñu defoon lu rëy yàlla xëy baal leen nga ne ah ñooñu yeesuñ ma maanaam yeesu ma ñooñu kon yàlla danoo baal kon loo bëgg a ko def loolu woru la ak naagu yërmaande yàlla yi baaxul noo mën a mel loo mën a toll ci bakkaar jéglul boo jéggalu yàlla jéggal la boo tuba yàlla baal la borom bi nee na bu leen naagu mukk yërmaande yàlla léeg nit nag yàgg daf ñaawte ba tax mu ne man daal xam naa dootuma baax yaasu billah daal di continuer ci bonam di mooy yàlla loolu bokk na ci koy sabab bokk na ci it laytoo dogalub yàlla am na ñoo xam dañuy wax ne yàlla moom am mooma su mooy yàlla bu neexoon yàlla doo mooy loolu du lay mbokk yi ku jàng taw tawhid xam ne loolu du lay bi ci des it rafet njort ak yéene ju rafet doyut maanaam man daal lii ma def lu baax laa ci jublu déedéet diine xamut loolu diine li mu xam mooy ndax sant nañ la ko santuñ la ko léeg-léeg mbokk yi gis koo xam ne ma ngay def lu jàpp lu baax la misaal danaa joxe misaal léeg ay ay mbokki soxna yi nga xam ne dañuy raj raj loo ci armeel di siyaare ji sëntuñ leen siyaare armeel donte yéen ju rafet lañ ci am du ndigal léeg-léeg ñu dajaloo di jàng alxuraan ko wala ñu yëkkati xasida nur na lu baax waaye baaxul ndax du ndigal ci ñoom ab jaam lépp luñ ko santul rek baaxul ci moom loolu it daa mat bàyyi xel euh, bëgg jàpp ne yéen a ji yéen a ji rek doy na yéen a ji ak tënkoog tënku ci charia ngir ngir ngir nga jariñu da ngay tënku ci charia waaye doo rek yi man lu baax laa yéene kon li may def baax na eh, ndax lu baax laa ci yéene déedéet na fekk nga teg ko ci yoon nit ñi ngir nga jariñu dangay ngay topp ndigal te ndigal la nga teg ko ci sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam yéene jël rafet nag yàlla rek tax nga di ko def te bari na la ñu bari ñu yëngut ci ay mbir di ci sonn di dajale ay mbooloo wala baax yu ne ñu koy def mel na ne ci kaw waaye du ci du ci jariñu ndax xëtt ndigal la jàmm bi nag bu xëttee jariñu bi ci des it am na ñoo xam ne tuulul amal li ñuy wax maanaam jàpp ne daal faatoogo lu ne nga ci kanam des na euh, bu jàpp ne bu boo màggee bàyyi bàyyi nangam soo màggee bàyyi nangam te xamoo ko ngee màgg loolu it bokk na ci sabab yooyu bokk yi bëgg àdduna ci la bokk am na ñoo xam ne ña mooy yàlla bëgg a bëgg àdduna képp lañ ko teg euh, bëgguñ lu lu ñu cof ci seen aq wala ci seen daraja ba tax bu bu laajoon waxtu julli jot ñu ne fii ku fi julli ñu reetaan la woon da ngay bàyyi julli ñenn ñi dañ barab fekk lu ñuy tere ñu ne bu ma ko defut ñu jàpp ma nangam moo tax ma def ko déedéet xanaa bàyyi woo xel yàlla mi la tiim tiim ñooñu te bu ko neexoon seen noo ak loolu it ñoo ko bàyyi xel baax a baax ak rëy bokk na ci lii tasaare euh, ñaawteef li tax mooy di am iblis laanatullahi alayhi ak rëy moo ko dal ba mooy gu mooy gi mooy yàlla alak ala alak képp ku ko topp ak jaxasoog ay mooykat nag àndandoo yu bon dana tax dana di moy léeg-léeg nit koo xam ne fu baax lañ ko yaree waaye mu génn dem feneen fekk fa ñeneen ñooñu soppi ko bu mu xëy yées ñëpp loolu lu mat bàyyi xel la rawatina kilifa yi nga xam ne Serigne Touba Darou bokk na ci li ko gënoon a ñor bi asaliha mooy Touba gi ak fi mel ne moom moo tax foofu ku fi dëkk war nga bàyyi xel jublu ki taxoon mu sos ko lépp luy safaanu loolu boo ko fi indee tooñ tooñ nga borom lor nga sa bopp képp ku ci loru it da nga am jàq ja ci bàkkaar ba loolu it mën na bàyyi xel lu jël si nag aada it nguur la am na fi yoo xam ne sultaanul aada bokk na ci sabab mooy yàlla am na ñoo xam ne la ñuy mooy lépp aada la li yàlla suñu baaxee maama bu sa bu dee sa baaxu maama te baaxut ci da nga ko bàyyi Sëriñ a daf ñu doon yar ci yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada waaye lii suñu aada rek aada ju baaxut baaxut aada du diine mbokk yi lu ci baax dëppug diine nag dañ koy jàpp ne ne diine la léegi waaye jàppuñu sax ko ngeen ne aada la ci Sëriñ a bokk na ci lim gën a joyante bi mu dikkee bàyyi nit ñi ak aada yi fexe ba lépp lu tënku ci diine jeexit yi am nag ñaari xeeti jeexit la jeexit yi muy lor fii ci àdduna nga xam ne ay musiba rek la jural nit ki moom mooy yàlla bokk na ca mooy yàlla dana taxa umb am ñàkk xam mooy yàlla dana tax ñàkk te xam nañ ne li ma wax léegi mbir yëpp ci xam-xam lay lalu li la war nga ne ca xam li la tere nga ba boo xamul dara nag mën ngay fetal rek fu neex nga dugg yàlla nag day xañ xam-xam bi neen wattaqullaha wa yaalamukumullah am na ñuy wax sax ci boobu xam ne waaw waawu taalil la bu fekkee waawu taalil am na maanaam wax ne taqwallaa day taxa am xam-xam taqwallaa yi nag mooy def ndigal bàyyi tere mooy def ndigal bàyyi tere yàlla yëpp lépp lu yàlla digle loo ca man nga def ko loolu loolu ku ko def eh, da nga yàlla joxal xam-xam eh, wax nañ ne eh, imaam Malik mas naa wax imaam Shaafi yu ne ko inni ara allaha qad alqa ala qalbika nuuran fala tutfihu bi dulmati lmaasiya ku jàngal bu yàgg mu ne ko gis naa ne yow yàlla sànni na ci sa ak leer ngal la waaye bu ko bu ko fay leer gi bu ko fay ci la moom mooy yàlla moom mu ngeen dégg euh, Cheikh Wakiya ba dong ba ñëwee ci moom di ko jàmbat daa jékki-jékki dal xamatu dara daan mokkal yaakaar naa moo ko defoon daan mokkal lool waaye jékki-jékki dal mënut a mokkal dara ci la waxee ne shakawtu ila wakiin suu xifzi fa arshadani ila tarki lmaasi wa axbarani bi anna al ilma nuurun wa nuurullahi la yuhda li damaa jékki-jékki daal mënatuma mokkal dara ma laaj ko sëriñ Wakiya mu ne ma bàyyil yàlla ndax xam-xam leer la te mooy yàlla lëndëm la lëndëm ak leer duñ bokk fu ñu nekk kon ñu bàyyi xel mbokk yi loolu. Euh, bokk na ci it euh, yi nga xam ne ay jeexitam fi ci àdduna mooy day tax say mbir jafe. wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min wax képp ku bàyyi mooy yàlla te mooy kon daf taqwa daf ndigal bàyyi tere. borom bi nee na jafe-jafe boo dugg mu andil la ma ma ma ma génn la ci wërsëgal la foo ko foogiwul kon mooy yàlla dana tax dundu gi jafe xat-xat yi nit ñi nekk yëpp nañ xam ne ak mooy ko andi te it li ci doy waar mooy kenn mën naa mooy ci barab yàlla wàcce nattub mooy ga mu làmbu ñëpp kon ay du yem ci bopp borom ci mooy yàlla la gën a mën a jëmoo bàyyi ko xel baax a baax mbokk day tax day tax a ñàkk wërsëg ibnu salaam ne inna rajula la yuhramu rizqa bi danbi yusibuhu yaay nit xëyit um lu ko um bàkkaar mbokk yi mooy yàlla day tax um kon loolu mën na bàyyi xel day tax it boo ñaanee yàlla yàlla du ko nangu jàng nañ xadis boobe bay wax zumma zakara la yutilu safara ash'atha aghbara yamut jël ilay sama waaye ji nga xam dafa sonn di dox ci yàlla sonn lool fu mu dugg fa nag lu araam la lekk moom la naan moom la sol yonent islaam nee na kooku fu muy jaar ba yàlla nangu ñaanam kon mooy yàlla day tax boo ñaanee yàlla yàlla du ko nangu fii ñu toll na nga xam ne ñaan mooy ngànnaay li gën a am njariñ ëpp solo ci jullit lépp luy tax boo ñaanee yàlla yàlla lu tàngam lu la lu ma tam moytu la te mooy yàlla ci la bokk kon bokk na ci li muy yàq fi ci àdduna day dindi barke ci dund yi mooy gatu yàlla ñaare mën naa bari alal mën naa bari xam-xam waaye kenn du ci jariñ day dund ba dee rek dara lépp niil loolu yàlla ci yàlla musal day taxit doo mën a topp yàlla sëriñ bi nett la ci ay téeréem ñu wax ne képp koo xam ne lekk na lu lew dana topp yàlla waaye ku lekk lu xaraam mooy yàlla man akala al xalaala ataa allaha ahaba am kari man akala al xaraama asa allaha ahaba ndax lu baax day jur lu baax saa boo dee mooy yàlla mooy yàlla googu ci lu ne parce que lekk lu lewut mooy yàlla la ndax xët ndigal la lu ñu la la nga lekk ko mooy yàlla la mooy yàlla googu nag dana xañ nit ba du mën a topp yàlla gis lay lekk koo xam ne bu bëggee jóg jëm ci lu baax rek ci waliasubillah waxe day léeg-léeg nit da ci dem ba jaaxle ci fekk day dund ci lu xaram day day mooy yàlla yàlla yàlla nattoo ko su bëggee def lu baax mu jafe ko gis koo xam tey day mën a war a mën a saraxe war a mën a dimbalee doo ko ci gis mukk waaye ma ngi dugg alam foo xam ne leer na ko ne bàkkaar la ciy jëlee waaye mënu ko faa ñàkk joxe waaye fu baax fi mënu faa joxe dara loolu bokk na ci euh, musiba yi nga xam ne mooy yàlla dana ko indi nit ki ak toroxtaange lay jurit yéen itam ne inna rajula la yusibu danba fi sirri fa yusbihu wa alayhi madallatuhu euh, ku ñu wax Salman Atami sax lay moo ko wax nit daa def bakkaar guddi fu kenn yëgut waaye bu xëyee saa bu jàkkaarlu nit ñu baax ñi maanaam toroxtaange bàkk ba day feeñ ci moom day gis nit nit ku baax koo xam ne benn waay boo xam ne day jaaxle daal man daal sëñ diw daal yàlla xiiru ko ci man fekk bakkaar la rek yàlla daa def ci moom leer goo xam ne bu jàkkaarloo yow bakkaar ba lay seen bu dul mën a jubu loolu dañ bàyyi xel ñu bàyyi xel ci mbir yi am moom itam da woyof ci nit ñi abu dar daa waxoon na ne innal abda la yaxlu bi maasiyatillah fa yalqa llaha fa yulqi llaah fa yulqi llaahu buxdahu fi qulubi muminin min xaytu la yashur ne nit dana wéet mooy yàlla yàlla jël mbañeelam daf ko ci xol yi jullit ñi moom du ko yëg de waaye jullit lañ ko bañ moo tax ñu baax ñi kuñ bañee rek bay ba nga seet say mbir saa bu la jubuur rek xamal ne am nga sikku suna ci yow ndax duñ la bañ ngir yàlla ngir ngir bañ rek yàlla tax ñu di la bañ ci desit nag dana tax bokk na ci sabab yi eh, ci ci asaar yi mbugal yu bari yi di am nii rek yàlla dana mbugal ay xeet ci bàkkaar xam nañ ne nit yoon yàlla lool lu yàlla mbugal wëlbati suuf dafa seen kaw ndax lan dañ def ak ngóor jigéen ñii ay xeer lañ leen sànni ñii am ndoxu labal dañuy faral di wax nag ne yàlla yërmaandeem yaatu na waaye jamono yu ñu toll bépp bakkaar bépp maasee bu ñu a mbugale aw xeet bakkaar yëpp yépp mu ngi dajaloo ci xeet yi fi te par benn lan doon léegi ay jamono liwaat dong amoon yàlla këpp wëlbati suuf ci seen kaw léegi nag li am lépp a ngi ci biir kon nit ñi war nañoo delluwaat ci yàlla bàyyi xel ne eh, yi ñu def nii nattu bi am nii laa àllum yar joxaan jëri ci lañ ko war delloo yàlla daa bëgg ñu dellu siwaat xam ne mooy yàlla moom yëf yi teyit ñëpp war nañoo gëm ne tukkitil àdduna lu jàpp lu jàppandu yàlla ndax dëkk yi gënoon a am doole dàq moytu li fay dee par ay nit nii bu wéyee di ab diir bu gàtt kenn du wax fi jëm ñëpp danañ xam ne kon yàlla su nam moo tukk àdduna rawatina mu jaaree ko ci mbindeefam moo xam ne bët du ci tege loolu war nañ ci jàngal bari bari mbokk yi loolu mooy lenn ci euh, jeexee yi mu am ci yemoon ci ci àdduna waaye yemoon xeam moo raw ndax euh, nattub àdduna ak bàkkaarub àdduna lum rëy rëy woyof na bu fekkee ne boo gi am jàmm lum rëy rëy woyof na bu fekkee ne bu faatoo am jàmm waaye nag am na yoo xam ne moom bu dee yemoon xeam noo fa nekkee noonu mooy wéy mbugal mu sax ba faw ak sax ba faw bokk na ca ku bokkaale yàlla bu yomal xaamee yàlla wax ne annaaru yuraduna alayha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu saatu adxilu ala firawna ashadd al adab dañ eh, képp koo xam ne mooy yàlla nga faatoo ci mbugal ngay dëkk bu mooy yàlla mo eh, day waral dëkk sawara ak naka noonu ci biir bàmmeel bari na ñoo xam ne ci seen biir bàmmeel ci mbugal la ñu nekk sëriñ bi daana jàngale ne yontu islam moo ko wax ne bàmmeel ku fa dugg benn nga fekk muy ab dër ci dëri aljanna maa muy am pax ci paxi sawara yi alxabru imma rawdatu min riyadil janna aw xufratu min xufari naar kii mooy yàlla nag bu dugg bàmmeel am paxum sawar lay fekk ñu di ko mbugal ci paxam yi ba yemal xeemat akbar yàlla ci la musal wala ngay topp yàlla jubal bu faatu mu nekk ab jardin nekk ab dër xéew lépp ne fa ba yemal xeemat taxaw yàlla teral la yóbbu daal janna kon loolu bokk na ci ay ay dana waral mbugal yëpp islam romb na ñaari ci Madina yaakaar naa ñaari bàmmeel daan na ñu ngi leen di mbugal de te moo ne li ñu leen di mbugal rëyut de la kenn ki doon rambaaje kenn ki daw tàggoog sobe day dem wanag dagg ndox mi buy gaanu waaye du du nit ba waaye day jóg bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi desal dara ci yére yi muy taqal yéreem yàlla mbugale leen ci seen biir bàmmeel nga xam ne dafa romb gis yëg yëg loolu kon gis ne ci biir bàmmeel bakkaar mooy yàlla dana fa topp nit ba di ko boole ci yoo xam ni boo ko seetloo day nur lu woyof moo tax mu ne lu woyof la ci kaw waaye ci woyofut ndax la muy jur waaye xam nga arambaaj ni mu yaatoo tey nit ñi toxali wax nettali wax déglu waxi nit dagg ko seet la la ci neex nga tasaare ko ñu ngi koy def ci anam gone nañ xam ne loolu lépp rambaaj la réseaux sociaux yi dañoo jural yeneen xeeti rambaaj yoo xam nit ki da koy def sax du ko yëg day jàpp deful dara fekk mi ngi def ay wax ci anam goo xam ne bëgg mu yàq dara tax bëgg jaxas ay nit tax yaa ngi rambaaj loolu lépp nag bokk na ci ay ay ay moyen bu yemal xamee topp nikki ki euh, bi ci desit nag dëkk sawara ñu di ko mbugal ndax sawara la tax mu metti mooy loo fa nekkee day sax maanaam tiis wi du àdduna saa bu nit ki doon sonn ñu di ko lakk mbaa ñu di ko mbugal bu dee mu jeex yemal xeet dee amu fa gis nga yàlla day wax ne kullama narjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab yomal xeet sax nit ki yaram bi bu ñu ko lakkee ba mu xam yàlla da indi yaram day indi deru wees ndax bu xamoon nga bàyyi ko mu continuer metti bi jeex na saa su ne nag aw derwee safay nekk di xëm metti bi di ko yëg ba faw loolu bokk na ci li koy waral nekk ci ay mooy ak yu mel noonu euh, bokk na ci ba tey euh, koo xam ne da ngay réy réylu yomal xiyam ak ñi nga xam ne yomal xiyam buñ dekkee xam nga euh, yu sa daa wax ne ñëpp aw mar la ñu dekk yàlla teral la yontu bi dexu kawsar nga xam ne ku ca naan dootoo mar nee na yomal xiyam ay nit dinañ ñëw ba jub ko di naan ñu dàq leen ne diw doon fi yenn yéen ne li doon ñu ne ko ñii ba nga fi jógee ba leen dañoo dañoo soppi lañ ne woon diine ji nga leen woowoon dañoo xëtt ndigal indi seen diine bopp di def lu ñu di tere eh, bàyyi lu leen digal loolu dana tax ñu dàkku nit ki eh, xaw ci xawut ba du naan loolu nag naqar wu tiis la nar a taxaw nar faa jóge dem sawar yal na ci Yàlla musal mbokk lii lenn lu néew ci jeexit yi nga xam ne maas yi am na ko kon ñu xam ne saa bu ñu kilif yi ñu woo di ñu woo ci mbaax di ñu woo ci njub nañu xam ne suñu njariñ la ñuy woo te gis nañ Cheikh Ahmadou Mountakha saa su ne du noppee di soññ nit ñi ci bëgg ñu tegu ci yoon bëgg ñu euh, wéetal yàlla suñu borom waaye tënku ci ndigal Sëriñ Tuubaa yi nga xam yëpp ak njub loolu nag ku am kilifa gu mel noonu war nga koo déglu war nga caa jariñu jataay yëpp it ci ndigalam lay amee am ci dëkk bi ak nit ñi nañ koy topp di ko bàyyi xel te di ko dund loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax ñaan suñu borom nag wala ñu dimbali wala ñu yërëm teggeel ñu natt yi yëpp delloo ñun ñëpp ci njub liñ gëm mooy saa bu nit ñi tegoo ci yoon yàlla dellu si xéewalam ndax du soppi yàlla du soppi te nit ñi soppi fekk soppi soppiwuñ xéewal la fi andoon ñëpp am jàmm lépp luñ bëggoon def ñu ko def ci jàmm léegi nag mooy gi bari na yàlla dañu won ne mooy yàlla nañ dellu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat bima kasabat nas li yudiqahum ba'da alladi amilu lan la'allahum yarji'un yàlla jublu ñu mettital de waaye daa bëgg ñu tegu ci yoon dellu siwaat jaar fi ñu war a jaar xéewal yi dellu siwaat bu yemal xeemañ bokk mucc yàlla na ko yàlla boole defal maa ngi jéggul di baala ko salaamaaleykum wa akamta ya akamul baaxi bi kawn ya sa bi ma qaaba min busraaka ya